yàgg mbokk yi nga àndal yëpp taxawal bët bu am solo bi ñoo ngi leen di nuyu nuyoo boo xam ni dafa bàyyi ko koo xam ni dafa bokk ci yéen muy doomu daara waaye yàlla si kàttanam dogal tey jii mu teg ko ci boppu dëkk bi si Zahir muy le de la ville de Thiès Talla Sylla Talla moomu yàlla dogal tey jii mu nekk bitim réew ci yónneent mission d'état waaye dañuy wax ni sàmbakat dafay mën kanamam mën ginnaawam waaye su fekkee bu fi nekkee mbir yu dox bu wuutee mbir yu dox kon mënul ginnaawam waaye sàmba moomu moom yàlla dogal na ni bàyyi na si ginnaawam ñoo xam ni soxla suñu yëpp wala ñu dégg ko ko danañ ko ko jotalee te buñ ko si jotalee dana si joxe ay ndigal waaye bés bii nag moom yàlla dogal na ni joxe na si ay ndigal ndax ñor gi mu ko ñor lan moo waral mu ñor ko

ak ku ñuy wax Malick Lo di ami d'enfance moo koo xam ne ku yàgg ak moom la euh, di militant tamit ñoo ñoo bokk ñëw fii ci bés li ma waxoon léegi nii bés bi lu tax mu ñor monsieur le maire ku ne xam ne ni diine moom dafa am place bu am solo ci mairie ville de la de Thiès ndax at rek si ginnaaw bu nu xoolee taxawaay yi nga xam ni amoon na ko ci daara ndax tey ji daara moo aye muy bi duggee ci mbas mi mu laal àdduna sépp yëngal ñëpp kenn ku nekk tànn nga fa nga xam ne fa nga bëggoon def say intervention waaye moom dafa wax ne gannaaw man doomu daara laa te daala ñenn ñi ñenn ñi la wax ñenn ñi dafa mel dañ koo xaw a man sama kàttan yëpp dinaa ko jël jëmale ko ci daara ak ndongo ya fa nekk moo waraloon mu recensé li nga xam ne moo nekk si biir dëkk bi si ay daara muy ñeenti téeméeri daara ak fukk ak juróom-ñeent bu ko xaymaa siy dongo mu doon si 16650 taalibe yoo xam ne ku yow mi kullu yow min bés bu yàlla sàkk dana leen dundal ci loo xam ne ci kattanam lay bàyyi ko ak ko ca jàppale woon loolu mu def ko ci juróom-ñeent fukki fan ak juróom-ñeent defe naa daara yi sëñ Modou Yacine mii loolu muccul woon ca loolu kon loolu lan moo ko waral mooy xam ni daara dafa jiitu ci moom te alquran am na mu taxawee ndax sunu borom moo wax ni ki gën ci yéen mooy ki nga xam ne moo jàng alquran te di ko jàngale waaye suñu borom dafa gul ko waxaat daal ni ki gën yéen mooy ki leen di liggéeyal xëy na kum xaadimukum kon ki leen di liggéeyal kon ki jàng alxuraan te di ko jàngale gën na si nit ñi waaye ki nga xam ne mooy fexe di ko jàppale sa loolu muy jëf di ko liggéeyal kooku tamit bokk na si tànnee bi kon nag moom mu tànn loolu daal ni kon fu ma mën di nekk ak lu ma fa mën di nekkee danaa fexe ba daara dana gis euh, boppam si li nga xam ne moom la ma yàlla dénk ma jiite euh, dëkk bi loolu daal moo tax mu ne tey jii bu ñu taxawalee bés bi dana fi ñëw gën la a tàllal loxo tàllal loxo bi mooy lan mooy ngeen ñaanal ko yàlla ngeen ñaanal ko yàlla mission bi nga xam ne moom la suñu borom gàll ci loosam loolu suñu borom mottale ko si jàmm ak salaam ba askan wi yëg ko yë yokk ba yëg ko waaye tamit ngeen ñaanal ko yàlla na réew mi am jàmm ndax ñaan si ña nga am yaakaar te fii yaakaaru na lool nag mu ne kon mi ngi sàkku sëñ Modou ngeen ñaanal ko yàlla réew mi waaye na ngeen ñaanal yàlla dëkk bi ndax Sénégal na am jàmm waaye Thiès bu ko si kenn ëppale Sénégal na yokk waaye Thiès bu ko si kenn ëppale Sénégal na askan wi euh, gën a am tawféex waaye cees bu ko si kenn ëppale gannaaw nag barabum ñaanukaay la kon nag na nga xam ni tàllal na la loxo ci bës bu tedd bi ci nit ñu tedd ñii fi nekk kon nag moo tax mu jël jëmmam ju xeebu jooju ak suñu jëmm yu xeeb yi dina fi ñëw ko tàllal leen loxo ngeen ngeen ñaanal ko yàlla di la sant di la gërëm nag xam sa taxawaay nag xam sa taxawaay si dëkk bi ndax bari na loo xam yaa ngi koy jëf si lu baax jëmale ko si askan bi mi ngi koy dégg nag te loolu bëggoo mu feeñ waaye dafay jaadu nag bu ah, njaboot gi teewee bokk yi teew ñu xamal leen sa taxaw seen taxawaay si dëkk bi ñun ñi nga xam ne ñun la ñuy tuddee ay autorité naka lañ ko gisee ndax bari na luy am nag te loo xam ni nit duñu ko wax te danañ ko yëg waaye déy déy bi ñu dégg si yow kat lu rafet la kon ñu ngi wëlbatiku di la ñaanal yow yàlla gën laa dégaloo mission bi nga xam ne si nga nekk nii suñu borom gën la cee taw feexal ba nga xam ni alquran ñooña muy tànn di leen tàggkat loolee da nga ca bokk incha allah kon daal di sant tamit suñu mbokk mi nga xam ne mooy seen yaat Masek mi nga xam ne moom ngay àndaloon ñëw di yëgle si bés bi taxawaayam rafet na ak bokk yi nga xam ne seen gom mi ngeen àndaloon ñëpp di leen sant di leen gërëm eh, di ñaan yàlla yàlla na yàlla dolli jàmm ci réew mi yàlla na yàlla dolli jàmm ci Thiès asalaamaaleykum